Modou Lo Ama Baldé xam nga ñaari mbëri xam naa leen bu baax xam naa leen bu baax kenn ki xam naa ko bu baax kenn xam naa ko Modou Lo moom xam ma ko ndànk ah. bu baax laa ko xam ah. waaw ndax benn sama xarit la sama gaayen la làmb nag boo si laajee nit man damay teel a wax ragal féete day xañ a wërsëg Modou Lo suma xarit la 2000 depuis 2007 lañ xamante man ak moom di déggante téléphone di waxtaan di comprendre di ne dama ni la waxoon naa ko dinaa ko waxaat Modou loo góor ëpp ko doole. yaa wax lii. maa la wax lii ci tele laay waxe amul góor guy tàkk tubay gu ko ëpp doole nit ñi nag dañuy jaawale ñaar dijj ak dëgër rëy ak dëgër dañ koy jaawale. a ci Ama Baldé ëpp ko doole. non non non non Ama Baldé mënul ëpp Modou Lo doole. foo teg loolu. c'est impossible ah xam nga Modou ay morom lañ rek. ah nuñ nekkee morom. ay mor gis nga man mi yobu nañ ma as boo xam ne yow mii su ma la laajoon at yi ma am nga romb ko. gis nga nit bu teelee bëre teel a sob du teel a waane dañ koy yóbbu fu mu eggul kon yow combat boobu tiitaloo ci Modou dara yow lu ma si tiital Modou Lo Modou Lo Modou Lo daa amati combat bu ma koy tiital man déggoo li ma la wax xanaa ku góor góor guy takk tubay ëpp ko doole la ca des nag moom dama koy bàyyi yéen kuy takk tubay ëpp ko doole loolu maa la ko wax fii tey am na ñoo xam ne nañ baat bi soufflé bu fu ko ama fekk bu dalee ci koom daan ko da am nañu wax loolu ñaari mbër yi dinaa la wax ñaar si ñoom dama leen a xam man bërekat laa hmm. Boy Niang hmm. Modou Lo kenn ëpp leen doole kuy takk tubay ëpp leen doole bàyyi loolu xel na ñoom daal lu ma la boo bëggee dégg dëgg combat bu neex la combat bu askan wi yëpp bëgg la parce que nag saa boo toogee si télé yi rajo yi wax dañ naan diw daa faral diw man dama la si début bi dama ne la Modou Lo suma xarit la mais bu ma ñëwee si làmb combat la boo xam àdduna bépp a ko bëgg askan wépp a ko bëgg yéen journalistes yi yéen ko gën a bëgg sax promoteur bi ko tëgg kon nag nekk na combat boo xamante ni man am naa ci yaqiin ni combat bu neex lay doon te combat bu gaaw lay doon. bu gaaw bu gaaw bu gaawee ku mu bu gaawee bu yéexee am mën na arrangé Ama Baldé si rapidité. si gaawaay waaw. si gaawaay bëre ah. waaw mën na arrangé Ama Baldé waaw. mais bu yéexee. bu yéexee jël temps mën na arrangé Modou Lo. Modou koy digal ci combat. gaaw it arrangé Modou Lo. Modou koy digal foofu. taxaw dëggal boppam jege ko rek. waaw jege jege Ama Balde jege ko indil ko xam nga nag nit du dem di xeex ngay kanaan <laughs> armé ni nii <laughs> mais dama ni Modou Lo la mu war a def diggante Ama Balde moom xam na ko te xam naa ni ah. combat boobu bu bu arbitre génnee seen diggante ah. di nga gis njar ndeem combat bu neex ngay gis yow am xam nga kale bi daanaa ma ah waaw yow bañ xanaa man waaye roi des arènes sax ma xam kele bu koy daan kon da nga ko a jox kele bi da ngay jox Modou kele bi kan Modou Lo waaw yow loo Lo maa ngi moom dépassé nañ affaire kele. di nga ko jox kele bi nañ ko man ak moom. da nga ko koy jox. <laughs> nañ bàyyi noonu parce que. damay laajte yëfu jàmbur la. non damay laaj ndax di nga ko jox yéen a ngi waxtaan ci kele bi. bis bu arbitre génnee seen diggante. di nga gis combat bu neex. Ah. waaw lii moom man maa la ko wax. mais kele bi mën naa joge ci Jordan dem ci Modou. Ah, mën naa jógee sax si Babacar dem. non Babacar du mbër du entraîneur yow laa wax yow mi muy sa xarit ngay bëre. mën naa jógee si Babacar sax. non yow laa wax ndax kenn mën naa jóge yow dem. eh mani nañ bàyyi noonu rek laa mu jooj daal li ma la. yow daa mel ni mooy li ma la mën a wax daal mooy. combat ba dina neex. ku ku ku seetaan nag bañ nettali la ko moom. Ah. yàlla nañu yàlla dimbali nag suturaal ñu ñu fekkee ko te tal ko te yàlla dindil ñu fi feebar bi ba mu set ba stade Demba Diop mel nam daan mel mel nam meloon si combat Gris Bordeaux ak Balla Beye Balla Beye un Balla Beye un deux waaw Balla Beye deux ak Gris Bordeaux ni seen jour ba meloon si nit yàlla na combat bi mel noonu combat yi taxaw yëpp xam nga leen mhm. bu ci sa ah mais boobu tamit naturellement xam nga tamit Euh, en tant que amateur laa la laaj quoi. en tant que amateur. Ama Baldé Modou Lô. mooy sa combat ah, Ama Baldé lu tax. parce que combat boobu combat bu dangereux la. Hmm. waaw ci ku ci ñoom ñaar ñëpp. lu tax surtout ci Modou Lô. la gën a dangereux. ci boobu ci Modou la gën a dangereux. parce que Modou a tout tous les risques ci combat boobu. Hmm. mooy yow yaay mag entre guillemets ma yaay juutu Ama ci làmb. devancé ko de quelques années dugg si ci làmb def ay preuve ñëw ba dégg daal yi maanaam dégg roi des arènes teg ko ci sa bopp mu mënoon choisir la facilité choisir la facilité mooy dem bëreeg bombardier jël sa revanche bu la daanee garaawul boo ko daanee mu gën a neex dem jël Gris Bordeaux mayaat ko une troisième chance boo ko daanee mu neex bu la daanee garaawul sa morom la am na doole wala ñu ne moo la sax gën a ëpp maas mais yow nga bàyyi fa loolu yëpp dem jël xale xale boo xamante ne tey jii dafa nekk ci yoon xale boo xamante ne tey jii dafa gëj am defet nga jël ko tey jii boo ko daanee dañu lu ñu wax ay non c'est normal moo ko mag moo ko ëpp expérience moo mais bu la daanee tey jii donc foofu la risque yi nekkee ci côté Modou Lo waaw et puis Ama c'est un combat où il n'a rien à perdre mm. ne va pas se poser de question xam nga Eumeu Sène day jàkkaarloog Modou Lo di posé wu ay question man maa yor couronne beeg naka laa war a bëree damay jël dama mais Ama du posé wu benn question devant Modou Lo day ñëw rek appliqué te application boobu muy ñëw di def mun na ci am xéewal bu rëy comme mun na ci am gàcce bu garaaw couteau <laughs> double tranchant la waaw am na solo kontaan naa ci yow macha allah Babacar maa la gën a kontaan euh, di euh, kontaan di am mbégte toujours di jàkkaarloo ak yow ci euh, micro bi. Mhm. waaw parce que wax dëgg yàlla say question day tegu ci yoon di jaar ci yoon comme la l'habitude de la dire rek macha allah liggéey bi ngay liggéey ci làmb itam ñëpp gis nañ ko yaakaar naa tur bi law na macha allah di ziar internet yëpp di leen béggee di leen wax nag maa ngi jégalu ci bépp kàddu boo xamante ne wax naa ko mhm. te am ñoo xamante ne vexé naa leen ci kàddu wax moo yombul ñun dañuy wax itam lu nekk ci ñun di wax suñu xalaat am na solo kookoo Ibrahima fay Beuz yow tamit dañ lay jaajëfal defe naa ne suñuy kàddu si micro bu mekkee dafa taaru comme ni ko neen ñeneen ñi di waxee yow sa partition daf ci am doole parce que ba ñuy def ay eh, revue de presse ci biir marché xullee ci ay groupe ah euh, di ko def ci ay kii defe naa boobu nga nekk ba Canada di ko déglu di ñu naan defel nii waxeel nii mooy tulli defe naa loolu ko yéenewul jàmm doo ko ko defal kon ñun amuñu sa fay man boog awma sa fay man Babacar saa su ne daal maa ngi lay ñaanal gudd fan ak yaram di ñaan yàlla aar la parce tamit macha allah Sénégal dafa soxla jeunes yu mel ni yow loolu du ma dañ di ko wax mais man Babacar daal bis bu ngeen déggee ma ne bës a bon jàpp leen ne bu keroog yeen naan ma maanaam nekkatuma ak sama sago maa ngi waaj a leneen ak may waaj dal waaw jaar nañ foo xam ne daal yàlla xam doy na yàlla na yàlla aar daal barke alxuraanul karim barke yonent bi sallallahu wasallam mais soxna nag xam naa da wax bu gars yi nag nañ war nag bés métti na de waaw ku la wax ne takku ma ba pare ah, takk li ngay doon xam da da ngay sànni xe te am dim anniversaire naa ne 2021 moom dinaa takk ah. dim anniversaire bi ñaan yi mu gën a bëri ci ma jot loolu la ay takkal takkal takkal te xam nga Modou Lo daf maa sonal. waaw tooñkat la waaw tooñkat la Modou Lo daf maa sonal am na wax bu ma tàmm mu wax. <laughs> saa yu ma ci sama xel demee rek sama yaram day dow <laughs> am na wax boo xamante ne mus naa toog mu am vocal bu ma vocal mais vocal boobu saa yu ma ko xalaatee rek uh-huh. sama yaram bi yëpp day lox moo tax deux mille vingt et un moom faaw mu def différence. yàlla na ko yàlla mot li barke yonent bi di nuyu nag l'international Saliou Ciss borom naa si AS Nancy Lorraine maa ngi lay ñaanal carrière yu jàmm comme ni ma ko rek yàlla na nga raw Roberto Carlos ci latéral gauche loolu laa lay ñaanal xule bég naa ci yow